الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد mbokki jullit yi maa ngi dénk sama bopp ragal yàlla di leen ko dénk xutba tey bi mi ngi jëm ci yaatu yërmandey suñu borom tabaraka wa taala suñu boroom a ngi wax ne bu la ñi gëm yàlla dikkalee ñi nga xam ne gëm nañ aaya suñu boroom yi na nga leen ne salaamun aleykum kataba rabbukum ala nafsihi rahma suñu boroom dogal na ci boppam waral na ci boppam ci ak mbaaxam yërmande ci ne képp koo xam ne def na lu ñaaw ci ak réere daldi tuub fasaasa daldi def lu baax dana fekk ne suñu borom kuy jéggalale kuy yërëmi la bu doom bi del wax ne naga laaj ne waaw kan moo moom li nekk ci asamaan ak suuf buñ tontuwul ne leen qul lillah ne leen yàlla moom lépp yàlla suñu borom moomu nag dogal na ci boppam yërmande kataba ala nafsihi arrahma dal leen dajale yowmal qiyaam di daje boo xam ne benn sikki sàkk amu ca bu boba nak perte ñeel na ñi nga xamne gëmu ñu woon borom bi dal wax ne sama yërmande daj na lépp daj na ñépp daj na fépp malaika yi bañuy ñaanal ñi gëm yàlla wa yastaghfiruna lillasina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma malaika yi biñuy ñaanal ñi gëm yàlla dañuy wax ne yàlla yàlla na nga jéggal ñi gëm yàlla ndax yow kat sa yërmande daj na lépp sa xam-xam itam daj na fépp mbokki jullit yi lii ak bégle la goo xam ne guleer nañ la goo xam ne suñu boroom di ciy bégal jaam ñi yaatug yërmandeem te mooy buur bi nga xam ne moo am kàttan ci kaw jaamam ñépp wa huwa alqaahiru fawqa ibaadi yërmande ji tekkiwul ne ak tële la déedéet bu ko sooboon ku mu bëgg a mbugal mu mbugal la waaye yërmandeem ji yaatu lay xamal jaam ñi ngir ñu man koo sakku mën a jaar ci sabab yi leen koy may man koo yaakaar itam bañ koy wuti feneen ndax amul feneen te mooy ki nga xam ne itam ab atte moom kenn du ca tegaat dara atte yàlla amul appel wala mu aqiba li xukmi bu attee rek jeex na suñu borom bégal jaam ñi ci yërmane jooju yu bassiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu yàlla ngi leen di yëgal di leen bégal yërmane ju nekk fi moom waridwaan ak ngërëm lu mu leen di gërëm وجنات لهم فيها نعيم مقيم اك اجنا جو خا مني داي كو فا دوغ دا فاي ام خيوال بو صاح داك غو خا مني دو تاغوك موم بروم بي دلو واخني قل يا عبادي الذين اسرفوا وخل سما جام نيغا خا مني دانيو ابل سي تون سين بوب نيلن لا تقنطوا من رحمه الله لولا بوب تاخ ني ناغو سي يرمه دي يالا ان الله يغفر الذنوب جميعا يالا دنا جيغلي بكار ييب li fekk nit ki tuub na ko ca waxtu wàññi nangu ak tuub innahu huwa alghafuru rahim borom bi dal wax ne xamalal sama jaam ñi nabbi ibadi anni ana alghafuru rahim waxal sama jaam ñi ne leen man mii may jéggale kat bi may yërëme kat bi wa anna azabi huwa al alim bu gisee suñu borom njëggal gi ni mu askanale boppam tudde sax aw tur ñaari tur alghafur arrahim waaye azab ba moom moom la melal ci ak metti waaye tuddewul boppam al muazzib tuddewul boppam mbugalekat dafa ne rek am na mbugal mu tege fee day moo xam ne mbugalam la moo xam ne mu tar la am amma yërmande ji nag moom moom ci boppam mooy alxafuur mooy arrahim moo tax yaakaar yërmande suñu borom tabaraka wa taala ak di jaar ci sabab yi koy maye moo gën mbooleem lu nit di wut ci àdduna loolu ko gën borom bi nee na xul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika falyafraxu huwa xayrun mimma yajmaun neel nit ñi mbaaxug yàlla ak yërmandeem kuy bég-bégal ci loolu ndax kat moo gën mbooleem lu ñuy wut ci àdduna di ko dajale yën yërmande suñu borom tabaraka wa taala ku gën borom bi dellu wax ne ahum yaqsimoona rahmata rabbik ñii wax ne kii war naa am lii kii warta am lële ndax ñoom ñoo yor yërmande yàlla ba di ko seddale نحن قصرنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورب نينا سما يرمني ما كوي سدلي ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات يكتنا نيان ني تي كاو ني تي ديس تي مي جوخي تي ادنا نيت دي دون تي تولالي ني نيو اب خام خام ني ني نيو اب علال ني ني نيو اب درجه ني واي نينا يوي ييب بور كين كو ني مانا جاري نيو سا بوروم لا ليتقس بعضهم بعضا سخريه ndax ki nga jël ne da nga koy fay ne dalay lay liggéeyal yow it yaa ngi koy liggéeyal ndax yaay daw di wuti li nga koy fayal jox na la coonoom nga jox ko sa alal kon kenn ku nekk liggéeyal na sa borom li yattaqisa baaduhum baadan suxriya waaye nag wa rahmatu rabbika xayrun mimma yajmaun yooyee ñuy def yëpp pataro baak surga ba kenn tënewu ca morom ma yërmandey borom bi tabaraka wa taala moo gën mbooleem lu ñuy am di ko dajal yërmandey suñu borom nag nit ñi dañ cee séddalikoo ñaari xaaj da cee am ñoo xam ne dañ caa bayliku rek duñ ko sabablu loo wax ñu ne yërmande yàlla yaatu na dëgg la yaatu na suñu borom a ko wax wasiat rahmati kulla shay waaye nag dafa am sabab ak i sart yu mu tëral ne mooy tax nit ki yeyoo am ñoo xam ne mel na dañoo wóoluwul yàlla yàlla daal jàpp nañ ne moom aw ay rek mooy bàyyi ko ci moom ba tax yërmande ak mucc ñu koy jéem a wuti feneen bokkaalekat yeeg ñiy dem ci jibar yeeg ñiy yaakaar yeneen nit ak yépp looloo leen ci yóbbee dañoo wóoluwul yàlla daal yàlla daal doyu leen dépendre ci yàlla daal jàpp ni ne lool moom lu garaaw la jàpp nañ ne borom bi moom mbugal rek ak coogloog fitna ndax it noonu la ñuy doxee ci àdduna lépp lu am ci xéewal dañ koy askanal ak keneen bu nattu amee nag ñu askanal ko yàlla yàllaa ko dogal boo déggee yàllaa ko dogal rek xamal ne du lu neex waaw dogalu bi yàlla loolu def dogal la fóot yàlla day dogal lu neex di dogal lu na xari waaye dem nañ ba miin na dogalub yàlla moom lu neex moom waaw ah, diw de dogal da koo dal de dogal da koo dal ah dogal nga est-ce que mënta doon xéewal déedéet bu doon xéewal duñu waxum dogal ndax jàpp nañ ne moom xéewal fu mu amee ci njàmbaaram la ci baaxuk baayam la ñaanuk sëriñam la ak góorgóorloom la la xaaroona waxoon ne innama utiituhu ala ilmin indi lii ma am yàlla joxuma ko sama xam-xam moo ma ko jox loolu ñu baree baree baree bari buñ ko waxul ci seen làmmiñ nit looloo nekk ci seenum xel ba tax na ñooñu kon fu ne la ñuy tuñ tuñi fu ne la ñuy làmbatu ngir ne dañoo bëgg a am yërmande yàlla fii ci àdduna bëgg nañ seeni mbir baax duñ ko wut ci yàlla de ndax wóoluwuñ ci yàlla àllaaxira itam bëgg nañ fa ci ëllëg waaye moom it duñ ko wut ci yàlla wóoluwuñ fa yàlla keneen da nga naan diw bi ma yaakaar diw bi ma yaakaar keneen la fa yaakaar kon mel na yaakaaru fa te borom mi nee na inna allasina amanu wa haajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuuna rahmatallah ulaika yarjuuna rahmatallah ñi nga xam ne gëm nañ yàlla nangoo jihaad nangoo gàddaay ci yoonu yàlla ñooñu ñoo yaakaar yërmande yàlla jël nañ ci abi xorayra radiyallahu anhu mu jël ci yonente bi sallallahu alayhi mu ne suñu boroom dafa am téeméeri yërmande nee na benn la ci wàcce fii ci àdduna benn boobu moom la séddale nit ñi ak yi ak bàyyi ma yeeg njanaaw yeeg yépp nee na ci la nit ñi yërëmante ci seen biir ci la mala yi di yërëmante même mala li muy ñàkk ñàkk xel day yërëm doomam da ngay gis mu koy nampal da ngay gis mu koy fegal lépp loo xam ne lu koy lor la mu ne nag juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yi ca des yépp da koy yeexe ngir ëllëg yowmal xiyaam pour yërëme ko jaamam kon yërmande jooja jàpp naa ne moo jara yaakaar yonente bi sallallahu alayhi ci benn xare ay prisonniers de guerre yu ñu jàpp andi leen ay jigéen nekk ca yoo xam ne dañoo yor ay doom am jigéen yoo xam ne fi ñu leen dajale nag mi ngi jóg di wër rek di wër ci gone yi gone bu mu gis ci gone yi ñu dajale yëkkati ko xool bu doomam mu tegaat ba dajeeg kay doomam jël ko daal koy taf ci dëndam daal di jënam weenam jox ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne la jigéen jii ndax jàpp ngeen ne doomam ji dana ko sànni ci biir safara ñu ne déedéet kii kay ni mu fonke doomam ji mu ne leen mu ne yërmande suñu borom tabaraka wa taala day moo ëpp nii mu yërëme doomam ji yërmande ji yàlla am ci jaam ñi moo gën a foor fuuf ndax ci biir yërmande jooje sax ci la ko may yërëm ji mu yërëm doomam ji loolu yonent bi sallallahu di ci wane yaatu yërmande suñu borom tabaraka wa taala ngir ñu man koo yaakaar moo tax gépp xéewal goo xam ne am na ci jaam ñi lépp mu ngi bàyyi ko ci yërmande yàlla kenn mérité wul lu yàlla defal ab jaam rek yërmandeem la même yonent yim def yonent du caagee ni dañ ko mérité de waaye ci yërmandeem la moo tax mu wax yonente bi sallallahu alayhi wasallam mission bi mu ko yónni yépp da koo résumé ne ko yërmande la tudd wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yónni wu ma la lu dul nga nekk yërmande ci jaam yi yonente bi mbooleem li mu andi rek boo ko doon mi nu mu tudd yërmande te mbooleem luy xéewal mi ngi ci biir li mu andi borom bi dellu ko wax ne ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك بما صوب لي ما لا وحي ما جيك يكري يوبك دودو تي خم دارا ثم لا تجر لك به علينا الا رحمه من ربك لما كو في بايي غا مانا كونتيني دي خم القران دي مانا كونتيني خم دين دي يير مانا جو مالا ديفال رك الا رحمه من ربك ان فضله كان عليك كبيرا بروم بي دال كو واخني فبما رحمه من الله لنت لهم ني ني واخني داغا باخ داغا رافيتي جيكو da ngaa mën a jëflanteeg nit ñi fa bi ma rahmatin min allah sama yërmande la maa la ko defal de yërmande juma la defal la moo tax nga mën a nooy sa digganteeg nit ñi waaye bu ma la ko defalul woon ba nga nekk borom xol bu dëgër wala kunta fazzan xaliisal xal lan faddoo min xawlik kon nit ñëpp dañ la fi bàyyi tëddam borom bi tabaraka wa taala wax ci nuux alayhi salaam nuux ci boppam moo wax suñ borom wax ko ci alquran ne yaa xaw bi أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده yéen sama bokk yi bu ngeen xanaa gisu leen ne bu ma yàlla joxee lu leer def ma yonent jox ma yërmande ju bàyyi ko fi moom nubuwa gi yonent gi la tudde yërmande wa aataani rahmatan min indihi yéen nag fa ummiyat alaykum da ngeen ci gumba yéen gisu leen yërmande ji anul si muku moo xaawa antum laha kaarihun ndax dama leen ci forcé te fekk bëggu leen ko hud alayhi salaam ne yaa xaw mi araaytum in kuntu ala bayinatin min rabbi wa aataani minhu rahmatan yéen sama bokk yi xanaa gisu leen ne bu ma yàlla joxee lu leer jox ma yërmande aataani minhu rahmatan moom it ak yonentam rahma la ko tudde yërmande fa man yansuruni min allah in asaytu bu ma moyee yàlla ngir bëgg ànd ak yéen kan moo may dimbali ci yàlla fa maa tasiiduuna ni xayra taxsir bu ngeen ma dolli lu dul ak perte isxaaq ak yaqub alayhi salaam suñ borom ne wa wahabna lahum min rahmatina wa wahabna lahum min rahmatina wa jaalna lahum lisaana sidqin aliya may naa leen ci sama yërmande ji defal naa leen làmmiñ wu dëggu woo xam ne wu kawe la Muusa alayhi salaam borom bi ne wa naa lahu min rahmatina aqaahu Haruna nabiya Muusa ba mu ñaaneel daa bëgg ñu defal ko haaruna muy ab yonent ànd ak moom yonent gi suñ borom nee na may naa ko loola ci sama yërmande ci sama yërmande wa naa lahu min rahmatina aqaahu Haruna nabiya Lut alayhi salaam suñu borom ne wa adxalnaahu fi rahmatina dugal naa ko ci sama yërmande ndax innahu min asalihin ci ismaila ak idrisa ak sol kifli ñoom ñëpp suñu borom ne wa adxalnaahum fi rahmatina dugal naa leen ci sama yërmande ndax innahu min asalihin wala ñooñu ay yonent lañ te ñoom ñëpp ci biir yërmande yàlla lañu tabbi xadir mi nga xam ne moom la Moussa dajeeloon suñ borom sax tudd tur ba dafa rek fa wajada abdan min ibadina aataynaahu rahmatan min indina gis nga xam-xam ba ko yàlla jox moom xadir ba Moussa sax mën mënta xam la muy def borom bi xam-xam boobu yëpp rahma la ko tudde yërmani la ko tudde wa allamnaahu min ladunna ilma borom bi xamal jaam ñëpp ne mbolem lu ngeen am ci lu baax ak ay wu ngeen mucc ma leen yërëm rek falawlaa fadlullahi alaykum wa rahmatuhu la kuntum min alxaasirin bu dul won mbaaxu yàlla ak yërmane yéen ñëpp ngeen kat kon kenn wërta naw sa bopp waxaat ne wala wala fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lattabaatum sheytaana illa xalila budul woon mbaaxu yàlla ak yërma dem ñu ëpp ci yéen dañ topp seytaan seytaan leen gën a ab kappa kappabal foofu ci sànk leen yàlla leen dimbale rek waaye bu leen bàyyi woon ak seytaan ñu bari ci yéen la leen sànk lattabaatum sheytaana illa xalila dellu wax ne wala wala fadlullahi alayka wa rahmatuhu la hammat taifatun minhum an yudilluko ñi nga xam ne du ñuy wër di réeralaate ñooñu itam ku ci yàlla defalul yërmane ak baax boo tuddoo mucc ci seen réer la tegoo te wa maa yudilluuna illa anfusahum wa maa ka min shay borom bi dellu wax ne walaw laa fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan nee na bu lu woon yërmande yàlla ak mbaaxam kenn ci yéen du mën a baax kenn ci yéen du mën a sell walakin allah yusakki man yasha wallahu samiu alim naka noonu itam wépp ay woo xam ne musal na ci jaamam ñi lépp ci yërmandeem rek la mu wax ci nuux alayhi ne walamma jaa amruna najjayna hóodan walasina amanu bi rahmatin minna nee na mbir ma ba mu ñëwee alkande ja ba mu ko wàccee ca kaw ña doon weddi nee na musal naa hóod musal naa ko moog ña àndoon ak du ci de du ci de waaye bi rahmatin minna ci sama yërmande laa ko musale kon ko jàpp koo xam ne yonent la te mënta musal boppam yermane yàllaa ko musal kon ñi nga xam ne yërmande yàlla dañ koy yaakaar ci keneen di ko yaakaar ci nit bañ ko yaakaar suñu borom tabaraka taala ñooñu ñi ngi ci cànkute gu bir ndax yonent yi kenn gënu leen a ñoo fare kaw ñëpp te ñoom ci la borom bi joxe misaal kenn ku ci ne lam am ci xéewal yàlla ko ko jox lam mucc ci musiba yàlla ko ca musal lépp ci yërmande mu wax ci shuaybu alayhi salaam ne walamma jaa amruna najjeyna suayban wallasina amanu maahu bi rahmatin minna musal naa suaybu ak ña àndoon ak moom ci sama yërmande ci saalixit mu ne fa lamma jaa amruna najjeyna saalixan wallasina amanu maahu bi rahmatin minna ci ayuba alayhi salaam wa ayuba isnaada rabbahu anni massaniya dur wa anta arhamu rahimin gis nga baatu rahimin la jëfandikoo ayuba ba ko feebar ba sonalee daf na rabbi anni massani yadur gis nga yonente yi ni ñuy tegginoo seen diggante ak seen bopp néewul asaabani dur wa massani la laal na ma tuuti rek feebar te feebar ba ko dal musiba la fa mu tëdd mënu faa jóg kon ku tuuti dal rek nga daan di wànk ka fu ne nga jëm fa lu ne nga ne man mënu maa jóg di jàmbat xoola yonente bi moom li dal ba nit ñi sax bàyyi ca àll ba kenn bëggatu koo jege waaye ba muy ñaan daf ne anni massani yadur ko faj ma de daf ne da man lor dal na ma te wa anta arhamur rahimin borom bi ne fa kashafna maa bihi min durrin fastajabnaa lahu fa kasafnaa maa bihi min wuyu naa ñaanam ga dindi naa lor ji ko daloon wa aataynaahu ahlahu ndax njabootam dañ ko bàyyoon ndax feebar bi wa mislahum maahum lu ko waral rahmatan min indina rahmatan min indina wéral naa yaram wa joxaat ko njabootam gu njëkk ga yokkataatal ko ci geneen njaboot gu tal ne googa lu ko waral nag rahmatan min indina du barkeem du ngóoraam waaye sama yërmande ju bàyyi koo fi man ci laa ko defalaloo mbokki julit yi yërmande suñu borom tabaraka wa taala kon mooy li jaam wala war a yaakaar yërmande jooju itam ñépp xaj nañ ci biir daj na fépp waaye de suñu borom da ko wutal ay sabab yu tax nag nit ki yeyoo ko kon ku ko xañ ku ko ñàkk moo ko xañ boppam ndax buñ ne am te nanguwoo ah yow kenn xañu la yaa nanguwul yaa jëlut jox nañ la la ca jiitu nag mooy rafetal rafetal nag mi ngi tàmbalee ci rafetal sa digganteeg sa boroom ci wéetal ko bañ ko bokkaale ak dara rafetal say jaamu yàlla rafetal say jikko rafetal sa digganteeg sa moroomi jaam boroom bi ne inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin yërmande yàlla de lu jege la ñi nga xam ne dañuy rafetal bokk na ca sabab yi gëm yàlla gu wér nag ànd ak jafandu nag ci yàlla bañ cee boole leneen boroom bi ne fa amma allazina amanu billahi واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه يسن يرمنا يال نيم جافي دافا جافانديكو سين خال سيت نا لينا دوغال تي يرمنا نيو دا لين دوغال ليغي ري باي فسيدخلهم في رحمة منه ني گم يالا جافاندو تي موم خال سيت نا لينا دوغال تي يرمنا وفضل ويهديهم اليه صراط المستقيم بوكنا تي ليكوي جوخي تام نك راغال يالا اك گم يالا اك نك توپ يونت بي صلى الله عليه وسلم بروم بي ني ورحمتي وسعت كل شيء ah sama yërmande day ñëpp xaj nañ ci waaye nag fasa ak fubuha lillasiina yattaquun maa ngi koy jagleel nag ñi ragal yàlla wa yutuuna zaka di joxe azaka wallasiina hum bi ayatina yuminuun ñi nga xam dañoo gëm sama alquran mooy ñam allasiina yattabiuuna rasul ñii topp yonente bi sallallahu alayhi bokk na ca la koy joxe itam nag di digle lu baax di tere lu bon di taxawal julli di joxe asaka di top yàlla ko yonentam borom bi ne wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna anil munkar wa yuqimuna as alsalaa wa yu'tuna az alzaka wa yuti'una Allah wa rasuluhu ulaika sayarhamuhum Allah gis nga siin bi ñewat na ko jël ma ne yàlla yombewul noonu yàlla dafa ko dig bo fekke sax nga ci di ba dajeeg mom sax nga ci digle lu bax ak tere lu bon taxawal julli joxe asaka topp yàlla ak yonentam ulaika sayarhamuhumullah ñooñu day yàlla dana leen yërëm inna allah asidun hakim bokk na ci la koy maye topp alquran nag borom bi ne wa haasa kitaabun ansalnaahu mubaarakun fattabiuhu téere bii téere bu barkel la wàcce naa ko topp leen ko wattaqoo te ngeen ragal yàlla laallakum turhamuun ndax ngeen yeyoo yërmandey borom bi tabaraka wa taala bokk na ci itam suñu dé jàng alcorane nga diko déglu ni ñi def alcorane légui diko animer ay jotay alcorane kenn waru ko animer suñu toogee ba gis ne kete amuñu jotu déglu ko nogi ngi waxtaan dañ ko fay waye aw xew am ñu tek alcorane comme ni koy déggé ci jakkay ak fenn fu nekk te yow xamoo nit ñi ngi bëgg nañoo dégloom déet te borom bi dañu wa isa xuri alquran fastamiu lahu wa ndigal loolu nga bëgg koo teg nit ñi te xamoo ba xam nit ñi ñoom ci lu ñu nekk ndax pare lañ pour déglu ko kon alcorane fuñ koy téggé dañu wara laaj nit ñëpp ndax pare ngeen pour ñu déglu alcorane ab diir bu gàtt rek ñëpp concentré wu déglu wër ta yàgg ndax concentré wu saw boobu it mënta yàgg borom bi ne na ngeen ko déglu wa ansitu laallakum turhamoon ndax ngeen yeeyoo yor ma ne yàlla kon fu ñuy jàngee alxuraan te dégluwuñ ko ah loola day mel ne ña dégluwul waaye itam nag ka leen ko bëggee imposé te nit ñi amuñu temps wu déglu ko wala ña nga ca leneen wala moom ma ko teg sa da ko teg dem ne ciy soxlaam di waxtaan ak dugg ci lu nekk koo kat bu ni ngi yëg ne mi ngi bàkk gàddu bàkkaar bu rëy rëy alxuraan du lu ñuy ay jotaay du lu ñu xumbale barab lu ñu jaamoo yàlla la dañuy toog ba gis ne parce que jàng gi ak déglu gi lépp tuyaaba la benn ni ngay toogee ne maa ngi jàng alquran noo ngay toogee ne maa ngi déglu alquran ndax déglu alquran dafa foor boo seeta sa moo gën a foor alquran borom bi ne wa isa tuliyat tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun dama koy misaal ne mi ngi mel ne tey ndox boo ko doon sotti sa bopp ak bulu gu nit sottee mooy gën a foor ndax yow boo koy moo sa bopp da ngay moytu bu seddee partout yi ngay sotti am maa nag nit ku ñëw ko demal sotti kee ndox mi tiim ko rek sotti ko ko moom xamul dafa sedd xamul ragal nga ndox xamul rek dañ ñëw ne la ko yëreet rek ci sa alxuraan day ñëw ne la yëreet alxuraan ji wa isa tuliyat alayhim ayatuhu saadathum imaana dalay dolli ngëm wa ala rabbihim yatawakkaluun kon déglu gi ak jaamu yàlla naka noonu itam di bari lu ñuy jéggalu suñu borom tabaaraka wa taala istixfaar bokk na ci liy maye yërmande yàlla law laa allah la allakum turhamun bu ngeen doon jéggalu yalla ngeen yeeyoo yërmande yàlla bokk na ca la koy maye itam nag di defaroo julit ñi bañ di yàq seeni diggante lu ca am ci lu bëgg a ñu defar ko fa aslihu bayna axawaykum wattaqullah la allakum turhamun defar leen seen diggante te ragal yàlla ndax ngeen yeeyoo yërmande suñu borom tabaraka wa taala la ca mujj nag te gën a rëy ci joxe ñaan diko ñaan yàlla motax ñu naan wa hab lana min ladunka rahma wa hab lana min ladunka rahma yàlla maylu yermane ju bayiko fi yow ndax innaka antal wahhab ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا لنك يا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه